waaw je pense que li xew tey comme niñ ko gisee rek defe naa ñun ñëpp ñoo gisandoo déclaration président Ousmane Sonko bii nga xam ne moom la waroon amal voilà donc pour yéen ñi xamul euh, ndax ñu bari ñu ngi ma ci interpellé sànq ba léegi li fa xew mooy président Ousmane Sonko dafa mujjee pousse déclaration bi ba suba te loolu li ko waral mooy ña nga xam ne ñoom ñooy service service communication maanaam muy doomu aadama bu ne surtout muy kilifa bu mel ni la président Ousmane Sonko saa bu waree amal wax dafa am ay nit ñoo xam ne ñoom ñoo yor équipe communication ñoom ñooy ñëw pour di ko filmer pour di defar vidéo yeeg yooyu pour mu mën a jàllale communication bi. léegi nag tey dictature bi fa mu yegg dañ ko ne newatuñ ko doo dox rek loolu pare nañ ci yàgg nañu loolu nee nañ ko doo dox léegi nee nañ ko amatul droit di wër ci biir réew ma nga xam ne ca la bokk masu faa sàcc te mu bokk ci réew moomu masu faa sàcc masu faa luubal masu faa tooñ ñu ne ko réew moomu amatul droit dox fa léegi dañ ko ne amatuloo droit wax pour sénégalais yi bëgg a xam président Ousmane Sonko dañ ko ne woon avant amatuloo droit di circuler ci réew mi librement léegi amatul droit manifester ci réew mi librement léegi nee nañ ko amatul droit wax ci këram këram biir këram gi mu dëkk nee nañu amatul droit ngaam géngi ñam di wax pour àdduna bi yëpp dégg donc service de communication am ñoom ñëpp dañu leen tere ñu ne leen kenn du dugg kër président Ousmane Sonko léegi pour sénégalais yi bëgg xam loolu mooy li nga xam ne moom ngeen di dund waxtu bi yéen ñi ko daan déglu di ko déglu xëy na seen xol yi di bég wala dara wala xëy na ngeen sant yàlla ne am ngeen un leader qui est juste et réel léegi nee nañ leen leader boobu amatul droit wax pour sénégalais yi pour yéen ñi fa ngeen xam loolu dugale leen loolu seen bopp yi dégg nga léegi kenn amatul droit wax comprendre nga kenn amatul droit wax benn sénégalais comprendre nga benn sénégalais amatul droit wax pour ngeen xam ko benn sénégalais nag amatul droit wax benn sénégalais amatul droit wax léegi ndax ñi daan wax muy les activistes ils sont emprisonnés les uns et les autres ñi nga xam ne aussi ñoo daan wax dëgg di wër ci dëkk bi rek di nga xam ne di wane li nga xam ne moo ñaaw ci dëkk bi ñu koy wax ñoom ñëpp jàpp nañ leen léegi président Ousmane Sonko li ngeen ko xamee woon mooy saa buñ ko defee lu dul naka si noonu wala saa bu ñu doxalee lu dul dëgg ci réew mi mu génn mu dénoncé mu wax li nga xam ne moom moo ko naqari mu wax li sénégalais yi war a xam muy dëgg tey nee nañu ko amul droit wax pour na ko sénégalais yëpp xamee noonu léegi nag continuer leen toog ci seen kër yi di naan wala yàlla baax na yàlla dina ko lijjanti yàlla dana ko saafara yàlla dana ko sottil dina baax wala résistance toog leen seen biir kër yi naan résistance résistance lépp dina sotti incha allahu rabbi wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.